arena hebtu niwut abisa gor Sénégalais arena waaw yaakaar ne boo amoo wér amoo dara doo mën a bëri loolu dëgg la doo doo ko sattal bay bëri xam mhm. nga donc affaire situation yi métti na trop mhm. xam nga suñu ñëpp mhm. vraiment mais ñun suñu cas dafa bokkul ak kaaw corona bi waaw parce que ñun te yaakaar naa balaa état bi tëj lépp fekk suñu promoteur bi nga xam ne moo tëgg mu nekk tamit nag mu ci lancé wàll benn message pour sumay supporter ak bépp promoteur boo xam ne bëgg nga suma combat man Serigne Ndiaye numéro 2 sumay staff amatuñu Habib Lac benn benn benn contrat benn contrat liyeetuñu fi nekk nii. lu tax nga wax loolu. waaw mais ci lépp parce que bu fekkee mu nekk ba ma dox combat la euh, février la sama commencé ak suñu taxaw. février ban deux mille vingt. waaw. wala février bii passé. dama bëri Libidor mois de mois vingt deux décembre. waaw février sama combat ak suñu taxaw ñu war ko bëri le vingt et hmm. dañ ko waroon bëri. waaw corona bi ñëw. ñëpp d' accord nous sommes tous compréhensifs. bu ñëwee. waaw au moins yow promoteur yaa ngi tëdd nalaw bu gars yi demee njëkkante ay date mhm. dama nga njëkkante ay date xam ne ay xale nga engagé ay xale yu nekk nga engagé mhm. ñu bëri ñu seet leneen mhm. nga ñëw ne jàpp nga date le 5 juin diggante Nandi Fall ak kii Dame Sène Dame Sène waaw le 5 juin man ko tardivement tardivement ñu ñu accepté ko parce que bëgg nañu bëri libéré waa promoteur bi ok mu dem ba ci biir xëy nañu soo ko sib nee na pare pour bëri le 5 juin Mm-hmm. te jox ma un franc man ma préparé sama combat lépp sama propre moyen laay génnee di pare sama combat. ok yaa may dégg. Mm-hmm. la 5 juin boobu jàll. Mm-hmm. encore ñuy waaj. mu moo message message ma. Moustapha Gueye message ma ne ma le 17 juillet ngay bëre. ma jógee fekk maa ngi Gambie mu jógee Gambie. waaw nekk si yoon di ñibbi si. moom Habib Lekra mu envoyé ma vocal. xamal ma ne ma carrément que sa adversaire su ko sim nee na dafay jege tabaski bi trop mënul bëre le 17 juillet léegi dina ko pousse ba le 4 août. ok mais le 4 août boobu wóoragul woon. ma toog bala sa mbokk journaliste woo ma ne ma la 4 août ngay bëri. Mhm. ma woo père ne ko wal Habib la ka ñuy bëri. Mhm. mu père woo jotu ko di ko woo jotu ko. Mhm. dafa am ay nit bu ñu bokkee liggéey. dafa am ne dafa war di daw. waaw muy respect. bu jiitu mooy respect. parce que ay nit fekkee ne da bokk liggéey. làmb àq war ci am. lamb dafa métti ndax daa métti mais moom mais moom fayoon cent millions mhm. li ma ciy def wala li sama mbokk ci def da koy ëpp fuuf mhm. loolu mhm. ngay nekk kale kale de gauche à droite man dama estaf mu nekk si équipe bu mag laa nekk munoo toog ba ba préparé sama combat la 4 août parce que combat des même pas pas deux semaines ma génn def sorti boo xam ne ni teewoo fenn si yoon ne non woo naa Sococim léegi su ma jógee bi dinaa woo Tafa ak Serigne Ndiaye xamal na ne combat jamono kon mais yow li fi nga wala li nga expliqué su ma ko déggee mooy ça veut dire yow kon ameelatoo Habib Lecran. combat ameelatuma Habib Lecran benn combat. promoteur bu bëgg sama combat ak ku mu mënti noonu si àdduna ñëw nga waxal ak sa sama staff ngir paas ma dem bëri ji Habib Lecran bu soxlaa sama combat daf may fayaat beneen avance la may joxaat lay wax Tapha Gueye Tapha Gueye jox beneen avance ma préparé. joxoon na la avance. joxoon na ma avance suñu avance njëkk yi juróomi dërëm manqué lu ma ko avance global la ma jox. Ah, nga bëgg a taxaw ne amalatu ko combat. boo teg loolu si. da nga koo teg ci kayit. dama ko teg ci ay wala yoona la ko may li ngay wax nii. yoon may na ma ko dama ko teg ci kayit parce que da nga engagé nit. sa foofu sa foofu da nga nit ak ngay doxalee nu neexee promoteur bi. jox la est-ce que am na yéene jox la xaalisam. ko fa muy nelaw est-ce que du ay empêchement ay problème taxul ba tax mu aj combat bi. parce que corona bi duggoon na déjà. bi ñu ko war waree mois de juin. bu combat corona moo ñëwoon. ok même même boo ko ajee. waaw même mhm. nga jàppal ma trois fois date waaw yokkul ma un ma yom préparé sama combat. Mhm. te ku ne xam ne boobu nekk si yoon muy demee. Mhm. day man trop. ok man ma di xaar ay promoteur soxla sama combat. Mhm. mais non foog ma libéré ak suuf si ba pare mun xaar ma xaar te daf ma tardel bu méttee métti métti métti. laa tardel daf ma ba pare. ñaar ni muy communiquer teg ko yoon. ba mu soxlaa sama combat. dañoo jaar si ay portes yu leer. donc sama combat lu mun di xew nekk ci ay télé. ay média laa wala mu njëgee war na mun woo samay nii ak nii ak nii la. respect dafa baax ci lépp. maanaam daal doxalin bi mu doxal nga. doxalin doxalin bi yow si jëm boobu journaliste si nga xam ne làmb di doxee. wax dëgg làmb kay ni muy doxee mooy xëy na bu fekkente ne corona moom tax nañu aj combat yu baree baree baree bare su corona jeexee tamit ku ci ne am nga droit dem jàppi dat mais jàpp date yi tamit dafa am nu muy doxee nekkul da ngay ñëw yow jël dat bi la neex ok ok am nga seen tamit ay règle la ay këyit la lu ñu fa teg la ku ne dafa am lu ñu lay lu ñu lay jox hmm. ci ni ko yoon santaane pour man waaw ok tey man la 21 juin laa waroon bëri. waaw Gris Gris Gris 2 bëri kañ la 4 juillet daaw. waaw Gris 2 man instant yii bëri na ma bëreegu ma. ba Gris 2 dina ut licence date la ma wax ut date. bëri na mbir am ce ndax utul date. est-ce que ñàkk euh, ñàkk date. attends attends attends attends c'est que bi na ut date te du am date tamit na. attends affaire bi teg si cadre liggéey moom dafa ma jox avance kese li may financé sama combat loolu ko. nga jàpp lu mat quatre fois date te lépp du ay coobare moom dana man sa adversaire nee na pareegul néeg néeg nii sama adversaire loolu du wax. waaw loolu adversaire moom bu fekkente ne signé na contrat. waaw xam waaw ñaar. Hmm. lu munti xew na woo sama staff xamal ne nii ak nii mooy xew ñu communiquer si mu jàll état boobu nekk ci leneen parce que bu mu soxlaa sama combat xam na fu mu jaar pour tëgg sama combat. mais est joxaat la avance bi ne wóor na ci promoteur. pourquoi pas. yaa ngi lekk avance su jàmm. amul dara ñu liye fi nekk nii li ma def si combat bi. boo ko doon diviser par dix mille parties fayu ma ko moom mais yow la nga moom rek la la fay nag moom loolu yow lay engagé waaw ok ba tey waaw moom moom moom moo gën a xam ne ngeen mu wax ak man ku hmm. kilifa say kilifa ñoo leen amelatoo ko combat déggoo ma moom abi lekk naa moom bu déggoo dina xam baax li ma ko moom Mm-hmm. bu fekkee nii lay tëggee làmb sama mbokku mbër laay waxal nañ jël seen matuwaay bu baax parce que làmb dafa metti mënoo mënoo jël benn avance boo xam ne sax da nga ko war a libéré bu yàgg nga topp ci saa bu ñu jàppee lépp ci lu ñu fomp mooy sa adversaire nee yoon yoon ñu bëri sax at ñaari combat ñetti combat ay promoteur dañuy bëgg tëgg mais bu ñu xaatee ne yaa ngi avance jàmbur du la mën a tëgg ah, waaw loolu mais affaire dañ teg si yoon làmb am respect nga joxante ku ne joxante cër ñu liggéey avance te yàlla tax am na ne àq la baaxul parce que libidoor nga mu jëbëreel jéy seen ko tëggoon. merci mention spéciale Père Dieng ak Laxa waaw waaw parce que la jéy waxi nopp parce que nit boo tëggee lamb. Mhm. da nga koy jox ak mot sëkk. Mhm. et si publicité. Mhm. mbëri def signature contrat. lamb gi dem yoon man mercredi bi laa waroon bëri amul kenn am Sénégal la Serigne Ndiaye soo ko si mercredi la te lamb ñu toll noonu c'est pas normal du tout nga xoolaat liggéeyam bu baax. mu xoolaat liggéeyam mm. am na solo Habib ñu koy nuyu di ko ziar xam ne moom itam yàgg naa jàppale lamb ci côté sponsoring ñëw ba benn moment mu dagg licence pour nekk promoteur dafa naan daan defal daam seen ku ne gis na ne moo ko tëggoon jàppoon na tamit datan pour war a tëgg combat bi mercredi bii passé la ñu waroon bëre normalement yaakaar naa ne far yàlla dogal corona bi ñëw non corona taxul la bu baal lépp corona taxul la même bu corona bi amu ko n bu corona amoon man normal woon bëre da nga naroon bañ moom moo ne ab wax moom moo la waxal moo wax loolu moom ITV la ko wax nga baal ma ITV la ko wax ne woo na Sococim bu jigee fi day woo sama ay mbokk muy Tafa Gueye ITV kay du am baalu ndax ITV kër gu mag la eh. ITV kay boo ko tuddee fi dañ ci fier eh, ndax eh. Boubacar Diallo sunu mag la sunu xarit la sunu royukaay la exactement kon donc ça veut dire que donc ça veut dire làmb yi sax mhm. ñoom Balla Gaye ak ñoom si dañuy bëri mën du ma bëri kon moom daal décision bi mu jëloon décision bi mu jëloon mooy làmb ji du ko bëri du ko tëgg la 4 août doxe at ba jëmi jamono kon la 4 août bi ñu waxoon daal naroo kon cee bëree yow kon dégg nga bàyyi ma woon ngi lay dégg kay yaa may door comprendre waaw comprendre moo tax ma la man léegi amatuma benn kon waaw loolu day moom day naqari lijjanti kon nag hmm. Habib ah lamb itam moom am na aw yoon parce que tamit mbër mi bon bu fekkee da nga jox avance tamit yaakaar naa ne bu ngeen amee date ba fixé seen dat defe naa ne li war a mën a tax ñu ne combat bi amatul cas de force majeure lañ koy tuddee loolu mooy loo xam ne adversaire bi blessé na wala loo xam ne la da lu doy doy loo xam ne nii waaye adversaire bi nee na pare gumba kese kese kese moom defe naa itam ah loolu moom defe naa arena ebtonion tambisa gon sénégalais arena ebtonion tambisa gon